sunugal24.net soyez le premier à être informé sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal24.net may leen baal la bay mu jàkkaarloo ak la presse sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sant sama ñaari waajur sant sama sëriñ sëriñ Bachir Baara di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram te tax ko ci parti di di gërëm kër ñoom Cheikh di gërëm kër Serigne Babacar Sy bu baax a baax ak waa kër El Hadj di gërëm njabootu maam ñu bu Kunta Ndiassane. bu yëgee caméra bi ñu gisee wàccee leen Mbaw. wàccee leen Mbaw waa Casamance waa Sédhiou waa Malfara Bignona Kabao Ziguinchor ñëpp waa Saalum incha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm waa Kaolack rawatina sama supporter yi fi toog su ma leen yëg amaleen di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal jàmm rawatina aussi waa Waalo waa Séddo waa Canaba ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waa Mourtane waa Bambi waa Guinée Bissau ñëpp maa ngi leen di sant rawatina Guédiawaye bi nga xamante ne moom laa yeewoo yor tuuti Guédiawaye gëm Guédiawaye bëgg Guédiawaye ba mu jeex tàkk Guédiawaye laa gëm Guédiawaye laa gëm Guédiawaye laa gëm amul leneen képp ku fi takk ngemb nga nekk mbër Balla Gaye 2 moo tax ngay bëri tey man nag bële dëkk bi waaye mooy daw suma yaram maa ngi gërëm Alioune Thiaw bu baax a baax ak Talla Seck ak Pape Mama Fall mi nga xamante ne suba léegi ñu ngi fi toog ak Andaw Ndiaye di ko gërëm bu baax a baax rawatina suma turandoo Balla Gaye Baye Ndiaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm suñu papa Baye Allé ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm Moussa Fall suñu président ñu ngi koy sant Elimane Lam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm rawatina nag Alioune Sall monsieur le maire de la Guédiawaye combat bi da ko def kon combat jàpp ci képp ki nga xamante ne yaa ngi yow Guédiawaye Alioune Sall dina jënd taw yi dina jënd kaar yi wóor ko ñu def loolu ñoo koy sant bu baax di ko gërëm te gërëm si nag ba Karim borom Makkaani Maxlaam di gërëm ñëpp si mbéyam bu la kër Tivaouane ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm rawatina nag famille Cheikh Oumar Fouti Tall ak Thierno Bachir ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. yéen a sàmm ak maa ngi koy sant bu baax léegi nag bagaay waaw man Modou Lo dafa ne 1-1 eh, eh, lay doon le 13 la koy doon. waaw ay ma la ci tontu li ma ci tontu mooy lan. ndegam neex na yàlla suñu borom samay supporters yi. mosuloo gëm sax 1-1 dina am. asamaan man. 13 lañ gëm te suñu borom dinañ ko defal. mention spéciale. damay sant di ko gërëm. ginnaaw yàlla ak yonent bi bu Balla Gaye 2 nekkee ci forme bu Balla Gaye nekkee état bu baax bu Balla Gaye 2 ñëwaatee à grâce que Aziz Ndiaye bu baax a baax a baax waaye ñun daal yëpp xam nga dépassé na ci man loo xamante ne mënu maa taxaw di ko nettali te bu may taxaw si maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw bi képp ñaan kon nag yéen ñi yéen a tax mu tax loolu te keneen yéen a bëgg baal a jóg boobu mu jeex maa ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ndam te incha allah bu neex yàlla suñu borom yàlla nañu may ndam ñoo ko doon xamal bala dañoo seetlu bi nga jógee voyage ak léegi yow sa adversaire yëpp dañoo am même seetlu ci yéen mooy seen état de forme maanaam changement dafa am ci yéen. seen ay poids dafa wàññeeku loolu lu ko waral décision ngeen bëgg a jël ci bis bi wala lan moo waral ngeen def nii pour le treize. waaw xam man dama liggéey rek nekk ndaw ñu teg ma ay sàtt yu leer nañ di gërëm sama papa Moussa Fall mi teew mu nga ne mu laa àndal France fii vraiment mu liggéey man ak INSES boo xamante ne yaa tout complet donc man liggéey bi wu ma sama xel ne sax wàññi naa poids wala yokk naa poids waaye xam naa ne daal liggéey naa ba sant sama bopp. te alhamdulilah rabbil alamin loolu moo nekk importance loolu ba dina loo xam ndax dina gaaw ci yow wala du gaaw bu njëkk ba 22 secondes yàlla mooy maye ndam yàlla moo am yàlla ndam yàlla nañu ko may ndëgëm neex na yàlla ci moom bu bëggee mu yéex bu bëggee mu gaaw waaye lu combat bi laaj man Balla Gaye numéro 2 dinaa ko def ba yàlla ndam. ñu xeex ba yàlla muy tax. et presse bi amu leen question. jërëjëf Père Bakay Balla Gaye maa ngi lay nuyu pour ngir Dakaractu démb sa adversaire waaw damay gàtt. waaw waxal la. demañu dem sa open press sa adversaire Modou Xarañ Lo interpellé ko ci benn question bu mu jàpp ni que koy sot ndax gis nañu ne ancien coach mu ngi ci démb gis nañu Tapha Gueye après ci benn vidéo di la jàppale gis nañu baxaw mi nga xam ni liste bu ama seen bokk na ci ñi ko yoroon ñëw fekk si la mu ne loolu lépp intéressé ko. ndax wàllu pëlum la ko ñëw ci buntu ba ngay yem est-ce que Balla dafa jàpp ne que bi dafa diis moom ba war a tax mu a mën a wuti ñu bay feneen. aywa waaw xam nga ku xam Balla Gaye numéro 2 pourtant am na benn mbër bu mag bu taxaw ñëpp taxaw nag mu ne am na ku muy supporté pourtant kenn ngaa ngi ku nekk yaa moom sa xol. yaa xam koo ci dugal nga ci am na loo xamante ne nag ma ci débat am naa staff am naa encadrement li ma gëm man incha allah ma dugg ko ba ma koy sant baax bu gërëm ak mooy ma dikkee ñaa bu baax a baax ma sàmm ñaa buñ ko waaw après béy ko fu mu jeex. Balla combat bu ma duma su bëree ma daan ko. ci mystique nga ko teg am ëpp ko doole nga ko teg am da xam yoon wi. xam nga nit moom da ñaan rek ngay sabal doon mais yàlla ma yoon ndam moom ñoo ko ko def mais li gën a am importance mooy nga liggéey ba taxaw dóor sa bopp xam li nga liggéey. xam nga ne capable ak yow capable tegu ma ko fenn ci li ma liggéey di yàlla yàlla may na ndam di gërëm suma frère suma xarit Ama Baldé maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm képp kuy nekk Sénégal nekk ndamatu Cheikh na Cheikh Saliou maa ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant ñoom di gërëm Ndeye Diop Moussa Faye Diop Talla Meng Modou Fall ak Simon mi nga xamante ne moom mooy jàppale ak suñu gërëm baax bu taxaw ma. a Diop la Leewtoo point com fan ngeen ci face à face bi ngeen def bëri maa dañoo gis nga xam a nii mooy Modou Lo nga taxaw mu taxaw mu dóor lee pour a jàkkale nit ñu bëri bi ci des mooy nee nga ko mu xeex 15 minutes te Modou Lo gënoo lool da ngay naxaate ndax bu loolu amee la ci jël ndax bu la dóoree pour daf la bu doole ba tax nga teel wala xeexoo mu wax ne gëmoo ko li muy wax est-ce que ñoom Modou Lo moo nekk xam nga daal la ñu ay ëpp doole Modou Lo mënumaa ëpp doole ci àdduna incha allah jamais de la vie ba nga liggéey ba xam ne damaa liggéey xam nga ñun si taxaw man ba mu loolu kii sax moo nekk dafa bàyyi sama yaram amul problème loolu amul sens loolu rek la mais moom moo la gën a xam li ma koy wax rek ay supporter ak ñoom yëpp mais moom yëpp moom. c'est vrai que loolu mënul cher. moom la mënul sos te li ma wax xam naa bu soobee du ma ko bëre dara moom la mënul sos waaye nag lan moo tax moom la mënul sos lan moo tax mënul ko def moom la mënul sos bu soobee du ma ko bëre dara ñun ay champion du monde ñu may France la dama moom Espagne la dama man ay champion du monde ñu may rek coupe du monde bi passe nga ko bëgg de France. ñun ay champion du monde waaw Bakar ñoom ñoom ñoom Bakar Ndour la Lutte TV waaw ñu gis ne waaw Doudou Daara yow daa mel ni da ngay fàtte woon mu mel ni sa adversaire waaw mu mel ni sa adversaire Doudou Daara yow da ngay da ngay mel ni yow yaa ko ëpp lépp yow est-ce que nekkul ne yow excès de confiance mën na la indil en erreur ci combat bi nga jublu waaw ah, non confiance bi. lépp moo bëree bëree ba léegi ñëpp xam ne Balla Gaye doo ñu mel. ku mu mënti bëree dama lay respecté. damay ambulance. wane na sama supporter maa ngi fi. parce liggéey naa di tax ma xapli. liggéey naa di tax ma toog bu liggéey naa ma tax sama supporter génn. kon nag dama gën sama bopp. mais képp ku may bëri jox la cër bi ci moom. Boy Thiat Seck ak Adama Ngom franchement yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen gërëm. sa amitié bi nga fay mujjee bëre daanoo sa adversaire toogoo ci kawam Sa Thiès bi mu fa mujjee bëre dañ koo daan yow bis boobu nga tëjee sa amitié première victoire baa ngi koy jël ndax supporter yi mën nañ koo xaar. waaw li ngay laaj nii question boo mais boo mën laajee question bi. ma suma ak góor seen ci bokk yem mosul am ndam et sax amu ci ñoom tamit c'est la même chose mais incha ku ndam dina te nag maa ngi lancé benn appel bu am solo ay mbër lañu ay noble lañu suñuy supporter ay noble lañu personne la te nag fair play am ay jeu dañuy def ay milliards loo xamante ne tey mën nañoo xëy ñett ba ñaar te kuñ ci génnee da ngay ne mooy doomu Dóor waar maa ngi leen di lancé benn appel bu ñu xuloo du ñu xeex nañu supporté seen mbir bëre yaa xam mooy ko ndam mais nag bëre yaa xam mooy doon dëpp te dëpp yi boo ne te lépp ci fekk nañu ko def. kon nag maa waa Ngaye maa ngi leen di marché Samb ma jiitee fi ma yoroo waa Farba. Ngaye Masaka maa ngi leen di déglu. ku tege képp ku ne yaa ngi fi ma yoroo. ñu naan nag yal nañu yàlla may ndam yal nañu yàlla may ndam te yàlla nañu may ndam incha allah. dina ñëw nag jërëjëf jërëjëf ndax toogaay bi yàgg na taxawaay bi yàgg na. pare si maa ngi leen di sant bu baax di leen bëri di leen ñaanal yàlla gën a xam. Sunugal24.net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal24.net